jërë ngeen jëf donc euh, tey dañoo tase woon euh, institut d'académie ak waa école bi en général mais également commune yeeg conseil départemental yi ville yi ñu mën a xool naka la ñu mën a defee pour que ñu mën a rentrée des classes bi xam ne dañ ko prévoir le 2 juin ñu mën ko def na mu na mu gënee si région de Thiès donc xool lañ jafe-jafe yi xam ne moom lañ am pour que mën a rentrée classe boobu naaw waaye li si njëkk mooy def ndax école yi set dafa école yi am ndox te ba école yi am courant sax mën naa wax dama cëg bi mais naka la ñuy def également pour que xale yi fay ñëw ñu fee duñu fa jàppee feebar bi maanaam kit du jeune yi xam ne war nañ ko def en place ba xam ne xale bu ñëw di nga mën a sab nettoyer sa bopp di ko toog jàng bu ñu xoolee ne commencé woo am njàngoro ba pare commencé woo am feebar ba pare noonu tamit si jàngalekat yi xam ne ñoo leen di jàngal ak administration scolaire bi xam nekk si école yi ku nekk buur bu see war nañ la nga jox la loo xam ne tamit di nga mën a nettoyer say loxo jox la masque également mais mesure barrières yi wax yëpp daal suuf ñu mën ko appliquer si biir école yi il fallait que ñu xool tey naka la ñu mën a defee ñu mën a am garantie ne mesures barrières yooyu dinañ leen appliquer si école yi mais également beneen jafe-jafe taxawoon na mooy xale euh, maîtres yi en particulier ñu si bëri delluwaat nañu fi ñu dëkk surtout bi ñu jëlee mesure état d'urgence ba pare mais également xale yu xale yu bëri également ñoom it demoon nañ vacances te dellu seeguñu si biir dëkk bi si boppam ah, am nay problème transport donc loolu tamit jafe-jafe la boo xam ne taxaw na ñu ko xool ah, am na nag loo xam ne tamit c'est à l'aspect pédagogique pour que bàyyi surtout inspecteur d'académie bi c'est lié à l'aspect loolu tamit a xool la boo xam ne bu ñuy reprendre cours bi duñ si loraange di si am si benn xale et dinañ ko mën a jàngal tamit loo xam ne dina ko amal si njëriñ am nañ si yaakaar daal rek bu ñu le 2 juin dañ mën a am couverture de classe normale li ñu teg nag mooy eh, li ay matukaay yoo xam ne dañu mën a permettre li ñu jàpp nii tey ñu mun ko topp ba xam ne dinañ leer na dinañ ko def si niveau régional dinañ def comité de suivi boo xam ne du bëri nit man ak instructeur d' académie ak quelques services yoo xam ne mënuñ si ñàkk ñoo si nekk pour que bés bu nekk ñu mën a xool fan lañ toll si préparation ouverture des classes boo nee am retard ñu mën a jël mesure xam ne moo la laaj pour mën a euh, éviter retard boobu mais également préfet bu nekk wax nañ ko. mu def comité départemental maanaam boo xam ne dina def réunion bu mel ni bi ñu def nii tey xool lañu lañu war a def si ñoom tamit si rentrée classe bi bu ñu paree dinañ am ñoom gën a tuuti waaw boo xam ne dina mën a topp mesures yi xam ne moom jël yëpp naka lañ koy appliqué gis naa souvent tamit si institution d'académie yi wala IEF yi dañuy am ay district district mën nañ jàpp ne day xaw a taseeg léeg-léeg euh, méngoog léeg-léeg arrondissement dañuy wax tamit district bu nekk inspecteur bi koy rek jege ànd ak sous-préfet pour ñu xool tamit si école yi xam ne ñoo nekk si bërëb yooyu naka la si mën a àndee surtout liñ bëgg loolu mooy gën see impliqué maire yi ñu gën see ànd ñoom tamit parce que am na ay mesures yoo xam ne ñu koy xaaree si maire yi maire bu nekk taxawee école am je pense que état bi indi li ko li ko si topp je pense que dañu mën a am rentrée boo xam ne dina mucc ayib le besoin. waaw may rafetlu jotaay bi tey ministre éducation nationale Mamadou Talla defar. Euh, li ñuy wax euh, feuille de route maanaam fi ñuy jaar ba delluwaat ci classe yi pour xale yi ak pour jàngalekat yi mu sukkandiku ci euh, dogal boo xam ne jóge ko ci président de la république son excellence Macky Sall léegi bi ñu paree ci loolu gouverneur daal di taxawal li ñuy wax comité régional comité boo xam ne dafa dajale daanaka ñëpp ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu école tey nag ñu taxaw daje. pour euh, euh, euh, waxtaanee li nga xam ne moom la ministère tëral xool naka la ñuy fexee ba fii ci cees ñu mën a ne le deux bu ñëwee jàngalekat yi ak élèves yi ñu ngi ci salle de classe yi surtout élèves yi nga xam ne ñoo nekk classe d'examen maanaam CM2 troisième ak baccalauréat loolu nag pour mu am dafa am loo xam ne faw mu nekk d'abord bi ci njëkk mooy ci wàllu cet te ci walu set il faut déjà école yi ak établissement yi ñu raxas ko ba mu set euh, def ci lo xamné dal daal euh, lépp loo xam ne euh, lu lu bon lo xamné day wara mëna indi jafé jafé ci walu wërgu-yaram ci xalé yi ñu fexé ak service d'hygiène ñu dindi ko waaye tamit fexé ba nga xamné lepp lo xamné day tax ñu mëna a toppatoo loolu ñuy wax les les les mesures barrières maanaam yi nga xam ne mooy tax ñu mën a mucc ci euh, mbas mi euh, Covid 19 muy euh, les gels alcoolisés muy masque yi nga xam ne moom la ñuy sol muy saabu muy lave-mains lépp rek loo xam ne daal jumtukaay la boo xam ne day tax xale yi mën a mucc ci mbas mi ak jàngalekat yi bu soobe yàlla balaa ñu naan le deux lépp dina yegg ci école yi ak établissement yi. waaye tamit euh, loolu ci wàllu wërgu yaram la waaye ci wàllu njàngale mi euh, école yi dañ koy organiser waat noo xam ne euh, classe bu nekk du weesu ñaar fukki élèves ma joxe rek kii exemple boo jëlee classe boo xam ne juróom benn fukki élèves la dañ koy xaaj ñetti pàcc pàcc bu nekk am ñaar fukki élèves benn jàngalekat téye ko

pour ci wàllu transport xalé yi duñ ci am ben ben jafé jafé waaw ñi nga xamné defuñ examen parce que dañuy wax euh, année invalide ak année euh, blanche euh, man mi di wax ak yeen xamna lan moy année blanche ak année invalide parce que dama ko dund amna ño xamné dess ne des nañ maanaam munuñ continuer wuñ ci njàng mi parce que dañu tomber ak année invalide donc bu ñu demee ba xalat président de la République xalat né dañu wara fexé ba mucc ci lu mel non pour xalé yi euh, ma né euh il faut ñëpp euh, ñëpp ñëpp taxaw ci euh, léegi nag du caa gën rek classe d'examen yi ñoom ñooy jàngi rek ñé aussi ñu faté len dédét ñoñu ministre éducation nationale dañu taxawal ci tubaab li ñu wax apprendre à la maison manam jàng ci kër ga amna déjà ci fofu nonu amna canal éducation chaîne de télévision bo xam TNT la lu wax canal éducation euh, nga xam RTS daf ko daf ko jëlaat ak rajo communautaire yi ak yenn télévision euh, communautaire yi di ko rediffuser muy programme boo xam ne ay jàngalekat yu xarañ ñoo ñoo ko defar euh, te inspection générale de l'éducation et de la formation di ko saytu programme bobu da fay continuer ci ci lolu tamit amna na ci ay initiative yo xamné amna école yo xamné jëlone nañ ko pour encadrer euh seeni élèves ci kër ga waye fan yi dinañ xalaat xol aussi euh naka lañuy fexé euh xalé yooyu ñu jël leen en charge euh certainement du point de vue de l'évaluation de toutes les façons euh mom dal liñu japp fim mu nekk nii daal mooy dañuy euh, fexé ba nga xamné liñu wax année invalide wala année blanche baña am. waaw euh, nawet bi euh, daanaka boo bo fatlikoo amna ci at yi at yi passé dañ dan jang euh di réorganiser année scolaire bi ba dugg ci nawet bi.

boo demee ci yenn réew yi même Afrique fii nii dafay taw at mi yëpp waa Casamance gaa ngi nii donc il faut que ñun ñu adapté wu euh, ñu bañ a euh, jàpp ne rek gàllankoor waa parce que gàllankoor day am mais xam nga li gën a am solo ci doomu aadama mooy muy fexe ba gàllankoor yooyu nekk ay opportunité pour moom loolu dafa am solo trop te loolu il faut ñu génne ko ci xelu nit ñi ñu bañ di wax euh, dafay taw bu tawee du ñu mën a def lii wala bu liyee du ñu def laa et cetera xam nga fi mu nekk nii euh, mooy li tubaab di wax maa koy wax ci sama interview bi obstacle épistémologique xam nga fi ñu toll nii dañuy dund ci wàllu science li ñuy wax obstacle épistémologique parce que la science avance par obstacle euh, tey jii ci boo jëlee Covid tey jii amul benn scientifique amul benn boroom xam-xam bu la mën wax tey. Euh, à part Madagascar nous euh, avons Artemisia mais trouver en tout cas nous savons que nous avons que du Covid wala bu ko trouver. donc on est devant un obstacle épistémologique il faut qu'on surmonte cet obstacle là pour que la science puisse avancer gis nous découvrons le vaccin ou le sérum on dira que la science a avancé doomu aadama nag dafay toll ci jamono yoo xam ne euh, jafe-jafe dafa war a nekk ay atu ak ay opportunité pour moom waaye doone rek pëkk mi ngi nii rek damay dellu ginnaaw wala damay taxaw da nga war a avancer.